ma ne yéen waa jiir yi foofu ngeen téye foofu la Kaolack la ñu dëkk pire fii la ñu dëkk fii la ñu ne fii lañ leen tawee ay karawaas te fii lañ leen koy dooxatee message bi daal mooy di président Macky Sall def ci réew mi dama ne président Moustapha Niass wax na bërki démb mu ne waa président Macky Sall waay waay day ubbi rek du ubbi اللهم لا ضرر ولا درال واي دابنا في با الكشن خنا مو ديم با نيت ني نكو دوينا واي سوبا سو خوي رك امنا لو مانا اوبي سوبا سو خوي ليغينا تي ريمي لو خامنا ورنا كو مانا اوبي سوبا سو خوي ميغي تاخوالات اي بروجي يو خامتني تي داما ني كومبا اماتو في كومبا اماتو في داما ني مبولم خليفه جنرال تي ريمي mboolem xalifa généraux yi ci réew mi yi nga xam ne ñoo saytu njaboot gi amu ci kenn tey koo xam ne newoon ne moom la na jàll pour mu tali amul raxma nekkatuñ ci rawante ak Paul walla Jean kuy rawante daal xañ na desal ak poussière bi ñun daal liñ toll tey mooy lii maître Nafissatou Diop wax élection présidentielle lañ jëm candidat lañ am muy son excellence président Macky Sall du ñaar maa ngi leen di invité yéen waa Rahma ma ne buggatuma ngeen dem ci benn terrain tey buggatuma ngeen tontu benn détail ak benn wax li ma bëgg ngeen wuy ci daal mooy naka la def ba lañ wax président Macky Sall bu ñu demee le 24 mu gis ko. Uh-huh. fofu dal la len di invité à partir d'aujourd'hui bu tonto ti ben picc buy saf ci garab wati len ci terrain bi ñu liggéey pour faire ba niñ wax président Macky Sall bu le 24 février mu gis ko fofu la nek mais pour le moment soufflé nañ fin de déclaration pour une campagne électorale soufflé nañu guerre jeex pour une campagne électorale